جاء وجواد وهم يسلموك أسجار كلا سلام عليك رسول الهدى كما يسلموك أسجار كلا رسول كريم سجاه وجواد وهم يسلموك أسجار كلها سلام عليك رسول الهدى كما يسلموك أسجار كلها بالله والله تعالى في كرمال محمد خير العباد السلام عليكم يا ني سيداني ñu ngi leen di nuyu amaan ak kontaan te dellu si waat ak fii ci chaîne bi ci émission seral si xool si nabi ñu ngi leen di bégee bu baax a baax waa di leen wax ni yàlla leen yàlla jàmmal aar leen musal leen ci feebar bu baax a baax di leen wax ngeen moytu aussi bu baax a baax di topp li nga xamante ne si lañ joxe pour mën a waaw mucc bu baax ci feebar bi di leen wax ni bu leen teg seen bopp stress jàpp leen ci. doomi Abdullahi mooy anti stress Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu tax na dañu dugal ay clip rek ngeen safoo ko comme ni ñu koy defee ak saa su ne léegi day dem si daanu clip rek te ñëwaat. salaatu nii la topp xilaas bi. naan maam Maodo si amoo moroom. jëfal nga yàlla sa boroom. tagg rasul lu ñëpp yem. tanti taggam ya jël nga ko. tàng ba yoneen ba tàmbale. nekk di leer nga tàmbale xiilaa sabab bi gandale fulaar gi jaar wax nga nu ko wax nga nu kiiraayam mu doon sabaale yàlla ki wax nga nu géej ya ko dogoon na mu ci sëmba woy nga ko singaari wax nga la xewoon ca teenu zam-zam kameroon xëy sakk teen ba ngir kañaan yëm ca joo wax nga nu ko wax nga nu baayam Abdoulaye takkin soxnaam wax nga baay ba ñaani woon baay ba ko may sëy ba jaxaay wax nga nu ko wax nga rasuul kañ la juddoom wax nga rasuul loxo ca ko ñëw juddoom wax nga rasuul kañ la juddoom wax ka ko dooñ wax nga ña doon ndokeeli yaayam ba kanam leer ya fa jolli waye nga ko wax nga rasuul kañ la yaay jafaatu wax nga kañ la baay ba faatu wax la Abdoulaay ba ci alal mu doon ko waxi rasuul kañ la takkoon Xadija wax la mu jëloon ci ay gëléem ngir ca newoon Xadija Maodo way nga ko waxi gëléem ga mu rayoon ci cib ga jaam ya di fecc ngir xumbale woon ci tëndam maw taxawal la ko. kañ la ko yàlla yónni woon. kañ la ko yàlla yónni woon. pour ko Jibril fekk woon. aaya ba Jibril wàcc woon. lépp jaxaay wax nga lu ko. wax nga guddeem gamora ñaan. wuy ji ki bindoon asamaan. yonentu yàgg waa asamaan. nañu ko teeroo way ba ko wax nga nu gàddaay bu rasul wax nu ña doon teeru rasul wax nu ña doon wayal rasul ci biir madina topp ko kooku mooy Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye ku sopp Seydi Hadji Malick waay radiyallahu taala anhu si ngaar yi wax nga la xewoon ca teenu samsam Cameroon xëy sakk teen ba ngir kañaan yëm ca joo wax ko te ka teen boobu jigéen a tax yàlla gas ko ajara naan ko fi baal mu naan ko yàlla laa la baal ajara woo yàlla ni il ديغل ابراهيم اك وخم موتخ ايل موي فيري يالا تي سين لاك ابرانيل ديغو جبرائيل ميكائيل عزرائيل ايل بوب موي فيري يالا déggoo seen maam sëñ Babacar ca xuruf ba i lux suran lana aya maabudu fi zumrati cheikhi aya watudu moo tax makk gee ku nekk bëgg a dem jigéen a tax jigéen a ko sanc ku def nii yàlla na nga ko ziyaari waay moo tax jëkkër bu gërëmee su ñaanee bal dal ay doj kese fa nekkoon ajara tallal ibrahima nan rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zarin inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu salata faj'al af'idatan min annasi tawi ilayhim warzuqhum min athamarati la'allahum yashkurun waaw comme ni leen ko waxee woon rek ñu nga yéen moom su ne nii lay demee rek yang dipakai ngi presiden mais ñun aussi nañ def suñuy pexe ba di leen bégal ci sang bu tedd bi ah, di leen dugalal ay clip ngeen di ko ah, di seen koor ci clip yi ko ji anti stress moom amul stress amul dara waaw ah, léegi dañuy dem sitaanaat beneen clip rek ñu ñëwaat nangu nangu nangu ki waral sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa maami ñii ma janool bi mu nu gënee yàgg na lool waaye ñu nit min ko nangoo yàgg na lool lu tax li tax sii sihii pap jërëjëf fawqa alqusuusi madiyatun sanadxu ilayna qismatun azaliya ana soppay sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu nee la moo la gën taxulaa bon taxulaa bon ku nekk la gën a ñaaw moo la rafetal te taaru Seyduna Muhammad ci la borom taar ya taaroo Yuusufa yaa ko abal taar ana soppay Seyduna Muhammad li muy baax baax baax teewul mu dégg innaka maytun maytun xam nga su ma manee attan gis ñu rob sama baay gis ñu rob alaaji Mambu Mamadoo ma mën koo muñ sama xel dem na ci Seyduna Muhammad altine altine danoo fëgg buntu këram mu ni man bil baabi ku ne ci buntu yabal Fatima mu bi ko muy Jibril mu ñëw jooy mu ni ko sama soppe Jibril lan jooy mu ni ko naka laay def ba duma jooy jooy ñeent fukki guddi ngi nii kaw asamaan ñangarang seeni sappi di ma tegg sëg ruu fa mawtu rasuulu cay demuk mustawa jibril ni ko jibril ni ko jibril ni ko ajjana doli koy leer ngir di teeru sagru yow sayyiduna muhammad mu ni ko haada lii loolu maa ko moom lu ko wax rek ci xeet yu rafet yon bi ni ko maa ko moom ba yàgg mu

bul fàtte ni sa borom digoon na la ci alquran ni wala sawfa yutika rabbuka fa tarda bu yowmal qiyaame nee na dina la may ba nga kontaan sayduna muhammad siggi ni ko idan fa inni laa arda man yoneen du ma kontaan fekk sama xeet ma ciy gis kenn kuy dugg safara ku bëgg yonent bi jógal taxaw booba sukuraat sa tar ndax danoo jëlaaleel sunu wàll foofa dafa liyaar di wax ku ne ci bi ñu dellu tijji Fatima tijji daw del du ko sama baay kii ma gis kanam gi dafa raglu te daa rafet weesu na jëmmi doomu aadama ma nga ànd ak leer parfum bi muy xeeñ mosuma xeeñ fii ci duniya la ji ndóoy waa ak waa ndayaan ndeysaan takkat gisuma ci moom njeexitalu kuy tukki xàmmewu moo ko ci xale yu ci koñ bi sallallahu alayhi wa sallam ma ko ci xale yu góor yi ci bi saa nga naan koy Fatima ay sama doom ndax xam nga ki nga gis mu ni ko déedéet mu ni ko kooku mooy dokkatu ba neex yi waaw di leen wax ni fàtte ñu waaw mbos yi waaw mbos yëpp ñoo ngi leen di béggee ak euh, fépp fu ne rek si àdduna bi ñoo ngi lay béggee di waa Tëngéej ji aussi na mën leen bu baax waa Pikine ñu leen di jaajëfal ku lim dee juum waaw ah, te yow dañuy may suñu xarit bi nga xamante ni si dafa spécial si ñun nekk fu sori ñu ngi koy béggee bu baax ñu koy El Hadj Thiam ba Casamance di ko may may ko soxnam ne ko Mouhamed Mansour bu ndaw di béggee waa Casamance gi yëpp nag waaw ah, di leen jaajëfal bu baax kontaan nañu ci yéen dañuy dem seetaanaat beneen kii rek te ñëwaat. Father. émission seeraat sa xol nabi comme ni ko gisee dañ jox dig daje ba yoon allah asalaamaaleykum wa rahmatullah